ami internaute Mak TV dalee jàmm tey ñu ngi fii ci commune Hann Bel-Air plus particulièrement ci quartier Hann Montagne 6 tey dañu ñëw dajeeg benn association benn bees bu tudd Teg mu leer Teg nag li ko tax a jóg mooy liggéey pour commune bi mën a jëm kanam ndaxte ndaw ñi yeewu nañ xam nañ ni commune li koy jëmale kanam mooy jeunesse jeunesse bi nag dañoo fippu bëgg seen commune jëm ci kanam fi ñuy dégg yeen commune ñu dégg leen fa moo tax tey commencé seen mouvement créer seen activité bëgg ko doxal ci dëkk bi kon dañ leen di bàyyi ànd ñoom xool li ñu indi loon tey si journée bi. salaamaaleykum sëñ bi na def. ça maa ngi fi sëñ bi. ñu bàyyi la nga présenté wu. bon Mamadou Dianko ancien président de l'ASC Montagne 6. te loo ñu mën a wax si mouvement bi di teg muy leen association bi. li ñu ci mën a wax bari na d'abord maa ngi remercier ñi nga xam ne ñoom ñoo créé mouvement bi di leen xamal ne vraiment aussi am nañu kontante pour taxaw fii tey pour wax ci parce que mouvement bi ñoom biñ ko créé yàggul. ñëw nañ seet si ma tey waxtaan naa ak ñoom gis naa jalon yi nga xam ne moom la ñu fas yéene posé pour le développement de Hann Bel-Air. tey loo leen ciy accompagner wàllu d'accompagnement loo leen mën a conseiller wala nga accompagner leen ci. bon comme ni ñu li ñu leen mën a conseiller bari na parce que ay jeunes la ñu te xale bu fekkente ne nii par exemple loxoom dafa set dina neex a bokk ak mag suñu conseil yëpp mooy tey dafa am xale yu góor ak ay xale yu jigéen ñu ne léegi développement Hann la ñu soxla. donc ñun ñi nga xamante ni yàgg nañ ci mouvement def plus de trente ans ci mouvement tey accompagner leen dina yomb parce que dañ leen jox wax suñu expérience ak nan la mouvement di doxe ak leen nii. bon asalaamaaleykum euh, les amis ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp euh, ku ci nekk turam ak santam di leen ziar bon may présenté wu man la Maodo Dieng euh, di président conseil de quartier bu Hann Montagne 6. waaw tey nag ñu am mbégte bu mag teew fii nga xamante ni mooy terrain Montagne 6. et di assister un match entre les jeunes euh, bi nga xamante ni waa teg mu leer ñoo ko organisé bon Tek mu leer nag mu nekk une association de jeunes bu nekk fii ci gar ci quartier bi bon nekk ay ndaw góor ak jigéen yu ànd vraiment pour boole seen doole boole seen xalaat boole seen xool pour euh, liggéey euh, pour faire la promotion de la jeunesse yëngu ci wàllu développement ci wàllu entrepreneuriat bon mun ne ñu am ci mbégte bu baax a baax a baax bu ñëwee seet si ma ils me vraiment ma sawar ci kontaan ci et di leen souhaiter une benn bonne réussite di leen wax ne yàlla na leen yàlla defal lu sut seen njort ci li nga xamante ni moom la ñu moom la ñu créé. Je me nomme Soubane Fall et suis chargée de la communication du team Tecmuler. Tecmuler, qu'est-ce que tu peux nous dire Tecmuler, c'est une entreprise d'abord qui a réuni des jeunes et qui sont là pour se battre pour le développement de notre commune et aussi l'avancement des jeunes sans drogue, sans toucher aux choses illégaux, illicites pour dire. léegi yéen lan mooy seen projet projet bëri na parce que y a plein de projets comme créer des choses ici à Yara lutter contre beaucoup de choses avec le BDAN lutter contre la drogue en en grosso modo on travaille dans la transversalité et dans la transparence teg mu leer leen donc moo ko tax a jóg dans le cadre d'une vie parce que soo déggee le mot teg mu leer mooy ñaari ñaari mots la yoo xam ne ça existe dans la vie mooy li ngay def mooy li ngay wax c'est-à-dire mooy li ngay wax na leer li ngay def na leer. donc du coup moo tax ñu ne teg mu leer lépp li nga xam ne dañ koy def ci dans la vie mooy quel que soit lu ñuy liggéey dans la euh, sociale muy loo xam ne politique la wa illaa ci côté business lépp dañ koy teg ci lu leer. ci yenn fànn yi nga xam ne jug nañ ci nag mooy yi nga xam ne projet yi nga ko war a développer après ci seen projet à l'avenir à l' avenir suñu projet mooy bëri nañ ay projet mais actuellement dañuy dox ci dans la transversalité ci lépp la ñuy dox projet yi ñu paree nag bëri na mais vu que corona bi taxaw na donc dañuy commencé gum ci suñ lancement de marque parce que marque bi ngeen gisee nii il est bien protégé donc dañuy lancé suñu marque ba mu dox ba pare après à l' ñu door indi la suite. salaamaaleykum sëñ bi na nga def. maaleykum salaam ñoo ngi lay sant sëñ bi. tur bi naka la. maa ngi tudd Teggi sant yokk. ñu gisee ngeen ñëw indi bu bees teg mu leer loolu mën a wax ci waa mouvement bi lu ko tax a jóg bëri na benn pour développement yaraax ñaareel bi comme ça maa ngi dégg ngay wax euh, affaire de sport bi la jeunesse loolu yëpp dañ ci jóg pour jàpp ci bu soobee yàlla waaw te mbir li ko li ko tax na amul amul frontière waaw lépp loo xamante ne dañ koy def pour montagne avancée dañ koy def bu soobee yàlla. waaw asalaamaaleykum euh, waa commune Hann bel wasalaamaaleykum waa yaraax asalaamaaleykum waa montagne 6 waaw lii nii ngeen gis nii tey euh, tim teg mu leer. ñoom ñoo wane seen bopp fi nga xamante ne mooy montagne 6 bëgg a fësal li nga xamante ne noonu la ñuy liggéeyee fësal li nga xamante ne mooy seen slogan si li nga xamante ne mooy commune bi de ce ñu invité euh, équipe bi nga xamante ne mooy euh, euh, sélection bi nekk fi nga xamante ne nekk fi nga xamante ne mooy nekk fi nga xamante ne mooy euh, yaraax ñoom ñu nekk ay euh, ay footballeurs yoo xamante ne dañuy euh, liggéey li nga xamante ne ci wàllum sport mën naa ne sélection bi nekkul montagne kese dafa laal secteurs yi nga xamante ne ñoo nekk fii au de notre commune. bu buñ naw au niveau donc de yaraax ñu nekk ay jeunes comme ñun donc ñu gis leen ni ñuy doxalee au niveau donc de yaraax donc ñoo on s'est dit que pourquoi pas mënuñ jël sélection bi def ak ñoom benn match de gala donc c'est ñu dajalee tey jii nii donc xam naa si kanam après dañ gën a yaatalaat donc gën a développer allah. asalaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp. bon di wax si turu sélection bi nga xam ne sélection bi yaraax yëpp la ëmb di ko dalee waala ga ba Dalifor képp nga xam ne ancien journal si suñu génération yaa ngi si yaa ngi si sélection bi voilà sélection bi nag lu ko tax a jóg mooy déjà jug pour jàppale suñu jeune frères yi nga xam ne ñu ngi fii nekk ci football di yëngul yenn gars yi xam fu jaar nañ fa si seen carrière am na lu si lu ci baaxul conseiller xale yi pour jàppale leen pour football yaraax jëm moo gën a tax sélection bi jug mais au delà de ça aussi tam ñu ngi tey képp ka nga xam ne yaa ngi sélection bi nga am des problème moo xam mag bu feebar wala tuuti wala leneen ak leneen dañ lay assister jàppale la donc sélection bi loolu moo ko tax a jóg jóg pour defar yaraax jóg pour defar fu sport yaraax jóg pour defar footballu yaraax moo waral sélection bi ami internet Mak TV li lañ leen indiloon tey jeunes boo leen dégloo xam ni seen dëkk jëm ci kanam kese moo leen ñor kon boo na ñëpp jóg xam ni commune jeunesse bi fa nekk moo ko war a kanam